beneen bi mooy que sànnu loor bi nga wax ñun balaa ngay xam ne dawuñu saala yaay ndeer ci loob mooy ngeen xaar koor gi jeex. ma mayaat la beneen album. ma mayaat la beneen album boo xam ne cent pour cent loob lay doon en exclusivement la ko may. waaw avec Xbet ak. ak ku ñëw ak ku ñëw. so pour wan la ne la loolu laa lay bëgg a expliquer ne la ñun instant bi amuñu loolu amuñu loolu tànk ginnaaw nit nag booy def benn affaire dañu am benn stratégie boo xamante ni mooy amatul album boo xam ne da ngay def suppu kaani jaxasi ci maafe dugal ci dugal ci ceebu jën déedéet su fekkee dañu lay may rap dañu naan la dañu lay may rap bu ñu lay may loo ñu may la loo bu ñu lay may rek ñu may la rek léegi Akhlou Brick loolu la jël ku bëgg a déglu album Akhlou Brick bu fekkee dafay acoustique day ñëw ne la damay acoustique bu dee rap moo la neex bu déglu acoustique bi xaaral mais sache que ni am nañ talent boo xamante ni lu ñu neex mën nañ ko te lu ñu neex la ñuy def sache comme li Ara wax rek leen lu ndaw rek laa ci yokk xam nga <clears throat> frère il faut que ñun ñu bañ a tënk suñu bopp suñu xel ak suñu xol ak suñuy ak suñuy bët euh, gis nga yàlla bu jëkk jékkee ne lem naa diggante asamaan ak suuf bu leen te ñu ngi fi di dund asamaan a ngi suufa ngi te pourtant gisoo lu ñu lem loolu dégg-dégg lay laaj c'est parce que auparavant dañ doon génne benn clip daw ba biir jóge Mbour daw ba biir dakaar pour yóbbu clip bi ci CD ñu tegal ñu ko yàlla lemal ñu asamaan ak suuf mooy indi na TikTok indi na Instagram gaynde loolu nag dañ koy jël teg ko pour que communication bi di gën a jege pour muy a gaaw c'est-à-dire que ni dañoo ñun jóg nit boo jógee pour siiw ngay dem màkka dajanteeg kaawa gi gaynde est-ce que jar na ngay dagg vol <laughs> ah il faut ñu jéem a dindi loolu noonu suñu esprit naan noo non TikTok musique bu TikTok di xànju loo xamante ne yow suba suba boo bësan ci TikTok bi woo say famille ne leen bu yaay bës naa <laughs> loolu il faut que ñu jógee si ñun parce que ñun hip hop musique bi surtout rawatina ñun ñii di ñoo di géng sa si dëkk bi naan musique bu TikTok affaire yooyu loolu loolu baaxul si ñun te dawalul suñu industrie nit yi ñu ngi ñuy raw àdduna jamono mu ñuy raw comme que jamono mu ngi ñuy daw te jamono dañoo war a ànd ak di dox. nañu dépassé état d'esprit boobu ay musique gu TikTok wala musique mais bu nekkul musique gu TikTok lu mu war a doon parce que TikTok la ñëpp di visé wu pour dem seetaane ji actuellement moyen moyen moyen la de communication moyen communication nag boo ko amee il faut que nga profité wu ci pour mën a dem pour nga defi loolu sinon boo ko deful aussi tu resteras toujours en retard parce que jamono buy dox da ngay ànd ak moom pour dem. loolu kese la Kanta Kanta aussi coté mm, critique naan critique yi. et je vais te dire une chose tout critique nag est positive nit buy ñëw di ñaanu ma ko yàlla na ma yàlla baal ci terme ngay tux bon sax nit ñëw ne la bàyyil bon critiqué na la mais dafa bëgg rek sa santé la soxla comprendre nga nit tamit ngay ñëw di def leneen mu ñëwaat fekkaat la fa xas la xas boobu mu lay xas sa njariñ rek la la bëggal bëggal loo xamante ni euh, euh, lu dul lu dul jàmm la en fait beneen affaire bi nag moom mooy que ni ñun dañoo am stratégie weeru koor nit ki day xiif say tànk mënuñoo fecc say bopp rek mu amaana lépp mën naa bañ ba mu des sa bopp léegi nag ñu def indi système bët bëtër bi si ndax bi nga xam ku nekk <laughs> boo toogee yow bii ngay mayee quoi def système bët bëtër moo tax ñu may leen bu mu bekk comme c'est moyen de communication la ndax ñun dañuy réfléchir en fait avec l'équipe on s'est dit que pourquoi pas weeru koor bi ñu def loo xamante ne nii Euh, bopp moo koy déglu quoi sa nopp danga koy dugal toog ba pare di yëngal sa di yëngal sa bopp moo tax ñu ciblé li nga xamante ni mooy loolu sinon ñu ngi souhaité ñëpp nekk ay bët-bëtër quoi. am nga lépp waaye yàlla ñàkk nga lépp. dëgg la. benn instant soo bokk y a xam ne da ngay gis suite euh, suite logique bi donc pauvre ak ñàkk jot tu sens que dafa am suite bu ñu la diggalee ñàkk jot wax si yàlla day kawe trop. danga am dimension booy tollu pour mun a comprendre mais boo dégloo boo dégloo pauvre nga mun a xam ne kon pauvre mooy ko xam ne euh, donc ñàkk nga yàlla en fait. jërëjëf bi. Euh, xar tubay ngay xam ne euh, parce que boobu aussi vous parlez à ne ay références lañ mais nañ xam ne am nañ ay références. ñi nga xamante ne ñu ngi leen di gis wala ñu ngi leen di dégg parce que ay démb nañ fi nekkoon wax ngeen ci Maolana Cheikh Ibrahima Niass wax ngeen ci maam Cheikh Ibrahima Fall donc ni nga xamante ne euh, noonu nga ñàkkee jot ah donc euh, ci suñu borom booy xam kan mooy yàlla balaa ngay sori am na ko xam ne liggéeyal na yàlla ba mun nga ko xoolee makaama boobu. nice appréciation boobu laa doon. yeah thank you thank you thank you. yeah yow. puis puis gis nga. kii di wax ni moom mooy def euh, le message dans le rap mu nekk benn émission boo xamante ni bokk na ci émission phare Sénégal donc euh, ñu koy salaaw mu nekk koo xamante ni aussi dafa dafay dund mbir mi quoi daf ko bëgg parce que ku ne le message dans le rap tey album bi am na ñu koy dégg te dégguñu ci dégg donc euh, ñu koy salaaw di ko wax ni déjà moom joxe na notu album bi et que c'est un album bien fait thank you ñu ñu lay nuyu ci loolu bu baax a baax seen un album boo xamante ni déjà moom xam na message bi gis na lépp ba mën koo relay ci li nga xamante ni sax ñu gisuñu ko ci message ak affaire yi ni ñu concordé woo thank you DJ Jaco merci à DJ Jaco Malick Ndoye bu Seneweb dafa leen ak jox kàddu bi frère salaam sama gars jàpp teen <laughs> minister ki ñu ko jotul déglu super <laughs> eh, eh, eh, melody. melody. My voice, the melody. Super kick the do a lick. That my LOE. I never go. <laughs> Oh, yeah. yeah. al man nag al bi bett ma quoi mais su ma amee lu may bett tey man dama si jàng man personnellement parce que man dama bëgg ay affaire de motivation ak affaire yooyu. Ah. mais defee woo leen ko comme ni ko gars yi defee si jàng naa ci léegi ni ngeen xamal nga ko kii bi nga joxe sa biir <laughs> yaakaar ma dama koy gis sama bopp des fois nit woo la fenn war la fay ma ne non non li moo fay ni jaru ko mm. tu vois sa doo inquiété bi ma nekk donc euh, am bi tout le temps dafay euh, bett bëri ci ñoom ñuy ñëwee mm. tout le mm. ci lépp moo xam classe la moo xam écotrip la lépp ci li ma dégg tey yéen nga wax écotrip te ñaari suma laa ci sant écotrip bi si des yëpp ay thème la préféré ngeen donc dama leen di féliciter. voilà quoi tout le temps ngeen souvent mais maa ngi xaar seen émission boo leen ñëw ma ragal la am benn question ne moom ak euh, par rapport ak XVR. moom il faut ma bàcc ko am. donc leen di féliciter sama. thank you bro thank you. bi ñu ah? xam nga yow foofu foofu la ñu te ñun bu seen question seen album beeg yooyu noonu dafa xaw a waaw ko ba après. baal naa suñu naa bon man j'avais deux questions à vous poser mais gis naa ni ñu ngi guddi dama koy taxale daal di boole premier bi moom mooy da ngeen woote rap te ci album bi liñ ci gis cent pour cent rap amul sax loolu Euh, ma jàpp ni tuuti yi ñu ne doon tuuti ngeen di wax que ni Akhlou Brick léegi dafay def musique boo xam ni lool musique lay def dafay def ay musique bu bees xam ne waa Nigéria ñoom ñoo koy def boo xam ne lépp rap la critique yi yéen ngeen ko dégg mu a ñëwoon ak def la beneen mooy aussi gis nañ a génne moom mooy euh, dañuy def musique ci benn plateforme digitale c'est-à-dire fexe bu ñu génnee dara mu daw TikTok xale di ko challenge lu ngeen génn rek ci ci musique uh-huh. challenge lay doon <laughs> te ça passe en sur la toile uh-huh. est ce que du loolu du leen yàqal dara muy TikTok est ce que leen apporter dara ci côté xaalis parce que gis na wan bi ci benn ñëw na te bon euh, ma def rek benn kii jox Deysa euh, question am la mooy que il faut savoir que ni plateforme bu xew si àdduna c'est un plus dafay am ñu muy tekkiloo tey jii ku ne ku ne Abilam da nga koy xam ni TikTok moo tax ñu ne Abilam si y avait pas TikTok peut-être on pas Abilam du dëgg donc plateforme bu am si àdduna dafay am lu muy indaale loolu loolu la ñuy wax ni moom la sa waay di wax naan jamono junne day am ko ko tee du tee xëccoo di am te coow ci teen ñi amul baag ñoo ko yee ci sama bi nga xamante ni mu ngi si biir xartu bay mu ngi si biir xartu bay donc jamono buy ñëw rek day am ko ko donc jamono buy ñëw boobu mu ngi wane plateforme buy ñëw day am ku téye plateforme bi koo xamante ni moom mooy ñëwaaleeg moom loolu tamit dafa am ci mouvance hip hop yëpp bu rap bu rab di ñëw muy rab boo xamante ni déri saaf la wala muy beneen lu ñëw rek day indi kenn trap Sénégal dafa am ku mu indi keneen ak keneen day am ku indi boo yooyu nga xamante ne ñoo dëkk parcelle ñu Mr Cash pourtant li moo leen indi drill so loolu laa la bëgg expliquer ci plateforme bi ne TikTok plateforme la boo xamante ni foofu pas ñu bannir ko dafa nekk loo xam dafa ñëw rek bokk donc boo defee musique gis nga cukku naam cukkul bu fuuma fuumala bu fekkee woon jamono TikTok nga xam ne ñun mënuñu tik sound TikTok gis nga Pakuti bu fekkee woon TikTok nga xam ne ñun rabuñu rabu TikTok nga xam ne Pakuti moo ñu ko dàq foofu kon cela veut dafa tombe rek mu agsi ñun ñuy def musique musique bi di ànd ak moom gars yi di yóbbu te naa la xamal benn affaire musique ñetti dafa toog ci ñetti phase dañoo tolloon foo xamante ni musique dañ koy wax ci nopp kase lay yem doomu aadama bi rajo moo dominé woon ñëpp di déglu musique ci nopp ñu def ba ci biir vidéo ñëw jamono jooju rajo moo ëppoon doole ba vidéo ñëwee ñu gis ni télé moo ëpp doole nit ñi def émission télé yi ñoom Malick Ndoye ñuy def tele ñoo ëpp doole ñu doon def rajo léegi nag bu ay iid ay bu ma nee ay iid mooy ku nekk ak itam noonu la album di doxee donc bu doon iid mooy iid rek kon dañuy yem ci taaj bi wala ñu jël rek benn sound bu tudd ñafal ñafal rek génne ko ñëpp di ci waxee di ci gis seen bopp de ce fait ñun amoon nañ possibilité di def ay sound bu njëkk ba yoo xamante ni bu ñu koy def dañ koy def ci loo xamante ni norme ñëpp lay nekk quoi te buy nekk norme ñëpp rek mooy li nga xam ne moo nekk suñu aada yi parce que ñun kiiku mbalax ak kiik yooyu dafa nekk si ñun du lu ñuy du lu ñuy du lu ñoo xam ne mën nañ ci jëw suñu bopp tey koo wéetaloon moom tëggal ko ay tama xam na nan la koy feccee ak lu mu dëgër dëgër ak tubéyam lu mu gànn gànn ak lu mu fin fin daa simple donc loolu noonu moo nekk ADN bi mënuñ ko dindi mais nag dafa am loo xamante ni moom la ñu nàmp muy hip hop dafa am ay norme am ay kick am am nu muy doxee donc ñun on a essayé du ma ne on l'a fait mais on a de faire muy jël ay kick yoo xamante ni c'est des kicks typiquement hip hop donc ku ci nekk boo takkee sa casque tu auras euh, vraie qualité wu album bi vrai instru yi vrai dégg li nga xamante ni mooy profondeur musique bi donc et là bu sóoree que ni c' est un album très bien travaillé c' est un album boo xam ne dañ ci def énergie. ba pare def si waaw def si écriture aussi. donc euh, vraiment dafa nekk loo xam ne dañ ko def pour sénégalais yi suñu partenaire daf ñu permettre may cité waat encore One X-Bet daf ñu permettre bi ñu defaree album bi ba pare nekkuñ di ko def physique di ko jaay loolu il faut le citer. ah kon album bi amul physique. amul CD wala benn clé boo xam ne da nga koy jaay tune bi wala. wantit a produit deux de nos albums ba tey album yooyu dugaluñ ko sur YouTube parce que déjà dafa nekk album yoo xam ne dañ ko jël def ko physique di ko jaay parce que ñun dañu respecté jaay en fait donc te Sénégal respecté wul jënd moo tax ñu ko doon jaay ba nga xam ne daawuñ dugal album te c'est des c'est des albums yoo xam ne yu nice la Reis ak ADB la donc après cette fois ci ñu indi benn stratégie boo xamante ni pour une première fois benn marque ñëw ci benn album accompagner ko ba sénégalais yi sax du jar ñu ciy def seen mëni mais marque bi moo koy def ci mëni su fekkee bu ko defee de contribuer si artiste yi waaw donc bu njëkk ba dangay ngay def sa album ba pare kenn du la ci fekk si doo ci génn da nga ciy génn sa xaalis te doo si am xaalis donc loolu war na mën a changer mhm. war nañ mën génn album am xaalis te duñu duñ génnee suñu xaalis donc loolu lañu essayé tey moo ñu waral ñu accompagner ak si marque bi ñu koy salaw encore di wax que ni nag dina nekk à minuit ci plateforme yëpp. waaw à partir de minuit tey jii en même temps aussi dina nekk suñu YouTube avec des vidéos lyrics yoo xam ne nit ñi dañuy seetaan en même temps di mën a lire lyrics yi te bu boobaa YouTube rek la ñuy def streaming rek la ñuy def seen connexion rek lay laaj donc incha allah encore. génne ay vidéos ou pas tey incha allah defe naa sax euh, on est à 19 heures 20 euh, 21 donc man je pense que incha allah 20 heures bi ñu si liggéey pour génne sound bi nga xam ne mooy audio déjà tourné. donc balaa koor bi ñu génn leen beneen vidéo aussi mën naa am ñu ñaxaat ko rek benn yoon donc euh, waree ba mais ñu wax ni dañ ko def pour euh, sénégalais yi gis si seen bopp mhm. voilà Aïcha ils ont une émission à 20h euh, féliciter encore une fois ci liñ fi jot a dégg donc vraiment ça a été un délice <laughs> li ñu déglu neex na album bi lépp macha allah dix titres yëpp a <laughs> donc man nag tey sama tànk lu ko waral donc Akhlou Brick c'est c'est des collègues déjà ci ci ci ci ci musique bi ñu sekk jàmm au-delà de ça il y a les rapports familiaux Ara qui est beau-frère et Deyza mon futur <laughs> mari parce que Deyza nee na parce que dama ko comme comme nga way célibataire <laughs> ci bi lañ koy takk xëy na. dama leer dama leer ah? mais nee na ma xaar ba ñu jaay album bi bu jaree. may jar may bu jaree su ma suy jaar rek may wuti guro Mali bi nag nga xam mooy sa yooyu di yéex a tas nga xam duñ gaaw a tas. wala petit cola. maa la wax. <laughs> dëgg la donc waaye c'était juste pour rire donc loolu la moo moo waral ma ñëw tey donc di leen encourager bu baax encore une fois man les meilleurs du rap laa leen tuddee the best. waaw the best. dernier son bi nag le dixième mooy sama coup de cœur ñafal bi <laughs> waaw <laughs> ah waaw ñu ñu war a ñaf na ba bëri tiktok bi moom yërëm naa leen xam naa ne son tiktok la lii moom day toj tiktok bi day toj <laughs> encore merci merci beaucoup waaw di wax nag sénégalais yi ah ngeen jëndi album bi nice na trop trop trop jaajëf. merci beaucoup euh, bien sûr merci pour ces propos. alors elle a choisi son son préféré le dixième titre bi moom mooy euh, son donc euh, très rapidement ñu def résumé di euh, son yi rapidement à la à la gis nga boo ku toog ci jëleen xiif képp koo gis mu toog ci jëleen xiif rek yoonam moo nekk yitteem ko ndaxte li lay yóbbu nee nañ boo ko yóbboo sa biir nekkul àgg moo lay yittee parce que gileem boobu noonu waaye bu nekkoon kiifam bi la topp mënoon nga koo rendi lekk te pourtant gileem bee koy yóbbu moo tax on a dit que li lay yóbbu boo ko yóbboo sa biir nekkatul àgg moo lay yittee aussi boo nekkee ndaw bul teg sa bët ci teg ci rek na nga ko teg ci li bëgg a nekk même bu nekkul ne ci rek et j'ai dit kaay ma wax la lu bëri waxoon bàyyi tey surtout pël bi ñoo koy may nag yi ñu waroon naa la wax lan mooy mbégte Ibra Fall yëg yëg ci yàlla bu mu xamoon ci xolam moom la Bamba taal. a bañ objectif li nga bëgg a nekk il faut mu am nga am objectif nga ne man lii laa bëgg a doon te loolu mooy tax rek doo gaaw a xàddi euh, bu ko defee nga dund li naan négatif après loolu moo uh-huh. mu nekk san boo xamante ne aussi bon munoo def projet te doo am message déjà message euh, pour la jeunesse. Mm-hmm. Euh, mu nekk que souvent dafay nekk loo xam ne ñun aussi porteur de voix lañ. Mm-hmm. un album 100 pour cent rab ça veut dire un un album avec avec euh, un message donc message boobu nag nekk na ci xar tubéy nekk na ci yeneen san yu bëri. donc euh, bi fi ñuy finiree mooy dañuy teg euh, benn sound boo xamante ni bon ba tey gars yi ñu ngi déglu projet bi di déglu des bu boom bang classique donc euh, on a préféré tëjee ko ak benn sound boo xamante ni bon du ma ni njoos du ma ni du ma ni cokkaas du ma <laughs> damay wax ne benn xeetu bitu xeetu bitu bitu bitu xale jigéen ñi ah. donc euh, ñu déglu ko mu nekk benn sound boo xamante ni dañ sama clash moom sa tànk loxo nopp parce que gars yi déggoon nañu ara di clash mais ara bi muy clash ba tey clash bi waaw saagawul quoi ci ci fii la nekk ci tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ ak sa un hmm, sa en sa puut génne wooye ma alaaji aas bëri classe am fierté léwatoo ma dugal kuu mu naan maa bette na xiir bi dal boo ko baalee da koy defaat ñaxal ñaxal <laughs> am na ñuy defee interlude lu leen neex am na ñuy toog di waxtaan mais ñun dañu jël choix mu nekkaale loo xamante ni avec l'ironie on sort un message déjà donc euh, très difficile à faire parce que am na thème yoo xam ne dañu xaw a sensible waaw am na noo ciy waxee rek ku ci mën a gis boppam day day day day yomb donc ma jox day mu yee mooy introduction tey liñ la mais créewul bi day day day véhiculer comme ça nga ko comprendre en fait ndaxte ñu ngi njëkkee ci euh, ngi xamal ni ku pauvre nga xamante ni yàlla may na la loxo may na la may na ay tànk nga feñaat toog ne doo dem pour liggéey kooku mooy pauvre waaye ki nga xamante ni yàlla may na ko loxo may ko tànk waaye may ko am am te terewul mu tëdd di pour koy donc aussi pauvre mu ngi ci alhamdulilah nee nañu aussi nekk ku xamul yàlla rek yow yaay pauvre quand on dit yàlla yëpp euh, dara lu gën ki nga xamante ni amaana xam na yàlla mu ngi gis li nga xamante ni ki xamul yàlla gisu ko bëtam du fa accédé Sénégal mu ngi dégg loo xamante ni amaana ki xamul yàlla noppam du fa accédé donc kon noppam pauvre na ci dégg-dégg noppam pauvre euh, bëtam pauvre na ci gis-gis xelam pauvre na ci xalaat ndax de moom day pensé ki nga xamante ni xam na yàlla amaana day réfléchir te ñaar ñoom idée nañ am nañ am nañ grande différence car là nous tous nous savons que la pensée est passive or que la réflexion est active donc tey jii ñu loolu moo tax ngaan pauvreté mën foofu quoi donc tey nañu yàlla dimbale rek euh, ba yàlla xamal ñu bopp ñun ñëpp montrer aussi que sans la prière l'homme n'est rien quoi dafa la c'est ça loolu sama système mu ngi reen sant ba léegi dafa mel ni wax nga si naaj bi aussi <laughs> not équipe so so loolu loolu kii la clin d'œil la <laughs> dafa leer so ñu am beneen sound boo xamante ni moo nekk euh, neuvième titre déjà léegi ñu àgg ci fukkeel bi. parce que dañu def benn projet boo xamante ni dañ ko def seul. peut-être su fekkoon projet la avec des featuring mënoon na àgg ba seize wala beneen titre mais on a def ko te incha allah dinañ joxe benn waa danañ joxe dinañ joxe diir bi nga xamante ni si la ko Akhlou Brick liggéey ci moment bi nga xamante ni dinañ ko divulguer mu nekk loo xamante ni lépp on def nañ ko en image so next track première question question réponse allez-y. on répond directement nañu répondre directement. yow maam Dame ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci question yi parce que c'est très pertinente. Mm-hmm. en fait man li nga xamante ni moom laay euh, mën a répondre ci euh, sa première question bi. mooy que ni pourquoi à tout moment ñu ngi nekk ci def mbuur Euh, te donte petite ñu dëkk te du ñuy ñëw Dakar bon dakaar ñun ñooy euh, la nouvelle génération yi njëkk a tëgg stade Iba Mar Diop c'était en 2017 lors de la sortie de notre premier de notre deuxième album ADBD euh, ñu ngi ko ñu ngi ko tëggoon stade Iba Mar Diop mais cette année-ci aussi dañuy wax rek ni ñun à tout moment suñuy def dara dañu bëgg loo xamante ni dafa tuuti en fait dañuy bëgg loo xamante ni dafa mag parce que xam nañ ni fii Dakar waa yëpp ñu ngi ñuy solliciter moo tax ñu jàpp nañ cet fois-ci date bi c'est officiel kañ la ça sera incha allah le 3 juin après koor gi fan lañ koy defee musée des civilisations noires moom incha allah fële ci esplanade bi foofu lañ koy defee le 3 juin incha allah pour jox waa Dakar li nga xamante ni car depuis 2017 tegaguñ fi suñu concert boobu bopp bu weesoo ay concert plein yoo xamante ni ay entreprise ñoo ñuy woo wala quelque chose comme ça ñu def ko mais cette année si c'est officiel que ça sera incha allah le 3 juin. Euh, deux mille vingt trois musée des civilisations deuxième question bi fan euh, la jógee. waaw mën naa la bàyyi aussi. ok euh, rapidement tey jii ku xam Akhlou Brick xam ni marque la déjà très visible donc bu ñu ko laajee ne ko fan la jógee cela veut dire day nekk loo xamante ni waxatu bu daje ak gerte la mhm. parce que yow boo nekkee ko xamante ni ambassadeur Nescafé di. nga nga def lu mel ni juróom kase mu nekk première publicité boo xamante ni moo atteindre un million de vues ci quelques quelques jours donc je peux dire que ni yow bu boobaa crédible nga crédible boo xamante ni marque bu ci nekk multinationale bu ci nekk mën na la soxla donc déjà mu nekk campagne bu euh, bet shop bu 1xBet euh, di mëne donc euh, mu gis tamit ñu nekk ci campagne ñu nit ak suñu album mu nekk waxtu bu dajee gersu ñun ñaar ñoom ñu sollicité ndoo mu nekk loo xamante ni dafa am et naturellement et que euh, c'est quelque chose qu'on félicite euh, ci seen directeur yi nga xamante ni aussi euh, dañoo nekk ñu accueillant ñëw rek boole ñu seen affaire yëpp